ñu bëri ñu ngi laaj ndax Penda Wurus ni mu demee ci sëriñ ba jàpp kii di Thiendella lu mu ko wax mu def lu mu ko tere mu bàyyi ndax mu ngi am ba léegi waaw waaw balaa nga koy gëm seetaanal vidéo bi ba mu jeex takk diggante démb ak tey ñu bëri ci askanu Sénégal ñu ngi koy partagé ndax nee nañu lu mel nii musuñu ko gis nañu dem seetaan vidéo bi te ñëwaat boo leen ñëwee ma àggale sama analise bi bul fàtte abonné laal cross notification ndax mbooleem vidéo bu ñu dugal nga mën sa jot ci lu gaaw. képp ku may seetaan te gis melokaan yi caw xamal ni cat mi ngi caw bu la neexee ak bu la naqaree képp koo xam ne day tàyyeel tàyyeel bari. képp koo xam ne day négliger mbir mu war a def lu ko amal njariñ mu di ko négliger képp koo xam ne day def lu mu yaakaar mu tas képp koo xam ne day def mbiram saa bu siiwee buñ ko waxtaanee maanaam da dégg sax ñun la cat dugg ci mooy gàllankoor am walla koo xam ne wér wér gu bari mënu ko am day wéradi rek wala koo xam ne fu mu toll wërsëgam day taxaw taxaw taxaw ba jaaxal ko yii yëpp ku ko gis ci doomu aadama bu ko gis ci boppam nga ne cat jàpp na ko ki ëpp cat ci àddina bu ñëwee ñetti fan ma tàqali kook cat li nekk ci moom jóg leen ci seen bopp ci cat ku la naan sangul sa la la bëgg cat nag koo mën a doon ci àddina weesoo ko fu lay jàppee boo ñëwee ci sëñ Abdourahman ñetti fan laa koy tàqaleeg yow te ci inde bii laa koy dindee ndox bu ma ko sotti woon fii day senn wala du senn léegi nag man li ma lay defaral ci inde bii bu ma la ko joxee ku mënta tee ndox jaar fii génn mënoo tee cat bàyyi la liggéeyu mag la liggéeyu cosaan la liggéey bu wóor la duma ko denc nag te askan wi soxla ko lu ma yor xam-xam bu war a jariñ nit ñi nit ñi soxla ko ma ni muqam moom mel ni ko amul xol xol xolub yéene bu baax ci ci ci doomu aadama yi loolu du ko def waaye nag bu fekkee ni nag dafa àgg ci ni fit wi di tëf tëfi wala kenn mënatu koo bëgg lu baax lu mu tàmbali lu bon moo ko cay fekk bu agsee foofu moom dama ne la cat jàpp na ko waaye dama naan la cat moom na ko laa lay wax moo tax cat bu reyul sembal nañ ci jóg cat moo gën a bon liggéey moo gën a bon rab moo gën a bon mboole mystique yi oh. ndax cat moom li ci doy waar mooy day rey daa day rey de xam nga lan mooy waaw kay li ko waral mooy cat day topp nit ba ca bàmmee la léeg-léeg ñu suul nit daal ni mu mëtt a ñaanal ndax ku baax la loolu cat la hmm? cat day rey moo gën a gaaw ci rey te gis nga cat li muy rey sax daa bari hmm? nee indi cat cat li gën a gaaw ci di ko indi hmm. mooy nit koo xamante ni amoo kaaraange képp koo xam ne dangay dem te amoo kaaraange amoo musulaay gooy jàng mu lay musal ci cat takkoo naanoo sangoo woo lu lay musal ci cat far force cat la jàpp. loolu. ñooy ñooy ñooy yéere yi nga xam ni. Mm. mooy yéere bu weex tàll bu jaar ci fa gën a tilim te daal ni ab taas du jàpp loolu yënul maanaam. yéere bu weex tàll jaar ci poussière ba gën a tilim daal ni nag daal ni nag poussière bi duma jàpp ab tër du ma jàpp gis nga cat képp koo xam ne ñetti nit ñu ngi xëy di wax ci yow cat dina la jàpp boo wut boo jógul ci sa bopp nit ko nit bu amee alal wala mu am am xel wala mu am ab taar wala mu wala mu nekk nit ku baax wala mu nekk nit koo xam ne daa xarañ ci benn affaire moo xam mu mën a jàng wala mu mën a def benn affaire bu wutul kaaraangeeg cat foofee mu mane foofa la cat di jaar ba yàqal ko ndax nit ñi saa bu nu waxee ci yow lu baax sax cat day ñëw asaak nag bu la dee waxal lu bon nit sax dina catu boppam yow waa nit dina catu boppam su ne di nga gis benn xale bu jigéen bu nekk ci seetu bi wala mu wokk mu nekk ci téléphone am zanab ba mu nekk ko rek mu daal ni maa jonga ma